بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى وصلواته وتسليماته على نبيه الرسول المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى بكي جلدي بكي دارجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi leen di nayu nayo lislaam bi làmboo jàmm làmboo yërmande làmboo barke lépp jugee yàlla yàlla na suñu borom boole defal ñu ko te defal ko bépp jullit tey jii di gaaw di benn fan ci weeru janvier deux mille vingt et un deux mille vingt deux ñi ngi ñaan suñu borom at mii jeex deux mille vingt et at ya ko jiitu lépp luñ ci jëfoon muy ab safaan yàlla na yàlla labal lépp lépp ca géejum njéggalam ga yàlla nañu yàlla jéggal sunuy bàkkaar lu nëbb ak yu feeñ lu xam ak lu xamul yàlla na yàlla soppi lépp muy aw yiw di ko ñaanit li ci sunu kanam mu defal ñu ci tawfiq tënk sunuy cër ci topp ko ak jaamu ko waaye nangul ñu lépp loo xam mas nañ koo jëf wala danañ ko mas a jëf te fulal ñu ko gën gaa barkeb alquranul karim ginnaaw loolu ñu fas yéene tontu laaj yi fi tàmbalee ko ci laaju sëriñ maajoor bi kii wér di woon nekk hôpital ñu sampal ko ay butéel taxoon daawul julli maanaam mënta jàpp ngir yiñ ko sampal ba ba muy jóg ci loolu fekk waxtu wi jeex na ndax dana fay julli yooyu tontu li mooy waaw ab jullit li ko war mooy bu julli jotee mu góor góorlu joxe ko ca waxtu góor góorlu di def julli bu ne ci waxtu rawatina ba mu wéradee dëgg-dëgg dee lu jege doomu aadama yëpp la mag ndaw góor ak jigéen kii feebar ak kii wér ñëpp la dee jege loolu ñëpp xam nañ ko si jamono gi waaye kii wéradi nag tëdd ca lalu hôpital kookoo gën a yey bu julli jotee mu julli ca teel ca njëlbeenu waxtu wa bu mënul jàpp bu dee mën nañ koo indil ndox foofu mu jàpp alhamdulilah bu ko mënul tiimukaay mu tiim bu mënta jóg taxaw toog julli bu mënta toog na mu tëddee mu tëdd julli tëddee wet nday bu ko mënee bu ko mënul wetu càmmoñam bu ko mënee bu ko mënul mu tëddee ginnaawam moom daal li feeg mi ngi ànd ak xelam comme niñ ko xamee julli wàccut ko na julli kem kat na nam ko mënee léegi nag comme demee na noon ba waxtu wa weesu na te julli wutoon julli ga walla julli ya des na mu fay mu fay bori julli yooya te tuub jéggulu yàlla boromam subhanahu wa taala na jéggulu yàlla ci faat googu waxtu yooyu faat ko te fay julli ga bu dee benn la wala julli ya ak nuñ mën a toll wallahu aalam laaj bi si topp Sëriñ Bara Mbay di laaj ndax dana dagan ci ab jullit mu bind alquranul karim duutal ko masalan bind benn aaya wala benn saar tàmbalee ca baat mujj ba ba ca topp ba jeexee ci baat bu njëkk bi subhanallah loolu lu xaraam la loolu lu ñaaw la loolu réere alquran réere yàlla dong lay tegtale jullit wërta àgg ci doya di gëm ne waxi borom bi subhanahu wa taala da koy juutal mu dor ko mën a jariñ loolu ci buntab njabar la gën jege ci lay dugg motax julit warna war naa wattandiku warna ko na koo def warna naa wattandiku képp kuy def lu mel non alquran bi yàlla wacce waxna ne shifaau la waxna rahmatu la wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil alquran safar la kon ci bepp julit bo xamne mi ngi dund waye yermandi la ci julit bu genn aduna dañ koy jangal alquran ñaanal ko sunu borom jéggal ko yërëm ko bu la neexee gën yaatal alquran safar la yermandi la ci aji dund ji mo xam da koy jang di ko xam di ko wala day ñaan yalla di ko ci alquran di ko wala di bind diko tak wala diko def safara lu mu meuna a doon rek alquran safara la yërmande la ñeel way gëm yalla waye nak kay juutal alquran loola mom moko ko alquran waye lolu deug deug nekkutul alquran te lolu bakkar bu reey reey la lu mata wat ndiko la amma laaj ci top ndax dagan na tak ak ñaan takk ab téere waaw bind alquran walla ñaan gu jóge ci yonent bi wala kenn ci jullit ñi muy ñaan goo xam ne borom bi subhanahu wa la ñuy ñaan loolu takk ko dara nekkut ci li fekk àndul ak lu koy xaraamal def ci lu mel ni sobe wala dugal ko ci buntab njabar yooyu la jullit di war a wattandiku li fekk ak ñaan yàlla la takk ko aayul dara nekkut ci wallahu a'lam laaj bi ci topp Serigne Moustapha Sylla di laaj kii moccu te moccu lu saxla ci sharia islamiya yonent bi sallallahu alayhi wa daana moccu aw yaramam saa bu yëgaa daana moccal kaneen ku yëg aw métit ndax day tafli wala da koy def ci ndox wala day teg loxoom moccu daal ay jeexitam daa war a jëm ca barab ba ñuy mocc bu dee loxo bay métti wala tànk ba wala bopp ba teg ci sa loxo ñaan li ngay ñaan wala da ngay moccal keneen nga teg ko sa loxo ñaanal ko wala boo ñaanee nga ëf mu jëm ci moom wala nga tafli mu jëm ci moom yooyu yëpp rek dagan na sax na ci njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam barakallahu fiik laaj bi si topp ba tey sëriñ mustapha Sylla ki nga xamne ne am ciet wala ngenté wala dara xewul waye soxna am solna yere yu rafat mu foto ko jël foto bobu diko duggal ci facebook wala ci statut whatsapp ak yo xarala yi xew ndax lolu dagal na tonpli li mooy déedéet qul la yastawi alqadiisu tayyib wala waajabaka kasratu al qadis fattaqullah ragal leen yàlla li baaxoon démb moo baax tey mooy continuer di baax ba bés penc la bonoon démb moo bon tey mooy bon suba mooy continuer di bon ba ilaayu di dégg la yàlla ak yonente bi xaraamal ñooy continuer di xaraam ba saa di taxaw lañ daganal mooy dagan ba saa di taxaw kon ngir ñi koy def bari na wala xew na ñëpp a ngi koy def loola bu ko yóbbul ak mbon du ko baaxal la bonoon jamono dox ba ñu baree bari wala daanaka ñëpp di ko bëgg a def taxul mu baax de daganul ci ab jullit muy photo awra di ko wane loolu lu xaraam la moo xam awray góor wala awray jigéen te jigéen nag yaramam yëpp yëpp bu dul xar kanamam ak ñaari tenq loxoom awra la comme ni ngeen ko xamee kon jigéen ji sol colaay yu mel noonu lu bari ci yaramam a ngi feeñ foto ko di ko wane ci whatsapp yi facebook yi benn njariñ nekkut ci waaye lu xaraam la ay bakkaar yu bari rek lay jur moo tax lu mat wat liku la ba tey sëriñ Moustapha Sylla nee na day laaj ndax takk suuf ku ko def ba génn àdduna njaboot gam ca amee daañ ko donn wala déet takku suuf mooy lan bu dee mooy ki takk soxna te ay mbokkam wala soxnaam su njëkk yëgul ne takk na soxna loolu du tee sëy am na nag lu ñuy tuddee nikaaxu sirri mooy takku nëbbu sëyub nëbbu sëy boo xam ne dañoo sart te bañ koy fas moo xam charte ba ca kilifa yi la bàyyi ko kilifa yi soxna sa wala ku góor ka wala seede lañ ko def loo ne leen nëbbu leen ko bu ko diw yëg wala bu ko kenn yëg loolu moom lu xaraam la bu dee loolu amut ci nag l'islam digul góor ne ko booy takk soxna faw na ko diw ak diw yëg kon bu takkee soxna te yëgalul ko ay mbokkam waaye sartul woon sàkkuwul woon ak nëbbu ca takk ga sëy boobu sëy bu wér la bu génnee àdduna ñu xam ne amoon nag njaboot barab sàngam njaboot googa dañoo am xàq ci donn ko euh, amul lenn luy tee ñu donn takk suuf nag yàgg nañ cee tontu dafa bari ay mbir yu wuute yu ñuy tuddee takk suuf yi ci ëpp nag sharia daa xaraamal sax loola ñuy tuddee ak takk sa dëgg-dëgg doonul sëy bu lislaam di nangu wallahu laaj bi ci topp sëriñ seexu naa sëy masalan góor di am fukki at ak juróom takk soxna su am juróom ñaar fukki at wala safaan bi góor gi am juróom-ñaar fukki at takk soxna su am fukki at juróom ndax loolu dagan na waaw yooyu yëpp dagan na amul benn at benn nattukaay ci at yi bu sharia teg ne xaraam na ci ku toll fii ci at mu takk ku toll fële kon loolu ngay laaj boobu dagan la wallahu a'lam laaj bi ci topp sëriñ alxaaji Cissé Gambi ndox mi génn ci jigéen ju tollu diggante bay waaja am doom lolu bokul ci waral sangu gennu ndox momu du waral sangu janaba bokk na nak ci waral japp manam dañ ko bolé ci yi yàq njàpp mooy li gëna woor ndax dañuy japp ne luñ baaxoo la boo demee ca muxtasaru qalil wa wajaba wuduun bi wal a'zhar nafyu ndox moom lañuy tuddé bokk na rek ci waral jàpp waaye du waral sangu jàpp mi sax day dëppoowuñ ci am na ñu ne ndox moomu daal yàqul sax am jàpp wallahu aalam ba tey sëriñ alxaaji xuseynu siise gambi dem wanagi ganaar ndax laab na wala sobe la ñu indaale atteeb njanaaw yi xeetu picc yi pittax yi xët yi ak xeeti picc yooyu ñoom lay génn ci ñoom seen dem wanag lu laab la lu jéggale la ganaar nag ak kanaara di wëndeelu di lekk sobe seen demoon ak sobe la bu dee dañ koo tëj ci benn barab mi ngi ci biir kaaf gi wala ci ngunu gi ni ko mën a tuddee la muy dundee lu laab la demoon ak am laab na dara nekkut ci ginaar nag bu ñuy wattandiku dugal ko ci ndox mu tàng rendi ko rek dugal ci ndox mu tàng ngir suq gi yomb bokk na ci deret ji taq ci baat bi bañ ko rendee deret jooju doon sotteeku di tuuru deret jooju sobe la moo tax ganaar gi nga xam ne ñu ngi ko tëj mi ngi dundee sobe buñ ko rendee bëgg ko soode bëgg ko dugal ci ndox mu tàng ni na fekk ñu raxas baat bi ba deret jooju nga xam ne sobe la taxoon ci lépp set na wallaahu laaj bi si topp sëriñ Mourtada Faye ñiy julli di toog ci ay sees bu dee jullig naafila la naafila moom jullit bi doonte mën naa taxaw bu ko neexee toog julli waaye nag lam waroon a am ci aw yiw genn wàll lay am ki mën a taxaw toog naafila toogaay boobu du yàq ak julle waaye lam doon séentu ci tiyaaboy naafila ga genn wàll ga lañ koy fay loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale amma jullik farata li feeg jullit baa ngi mën a taxaw day taxaw julli bu mënta taxaw sax te mën a taxaw wéeru day taxaw wéeru bu ko mënul it mu toog bu ko mënul mu toog wéeru bu ko mënul mu door a tëdd te la doon cosaan it mooy buy toog mu toog ci suuf moo tax kon bépp julit boo xam ne yaa ngi jóg di dox ak sa tànk dem ca jàkk ja boo amee soxla mën a jóg dox ak say tànk doxi say soxla dëgg-dëgg boo góorgóorloo tuuti nag war nga mëna taxaw julli li am solo ba am solo dal mooy nit ki xam ne li feeg mi ngi mën a taxaw julli bu toogee julli farata julleem wéru bu dee nag mënta taxaw ndax moo gën a xam ngàntam moo gën a xam wéradéem toog la man kon day sañ naa toog comme mënta taxaw julli toog la man sañ naa toog julli waaye li feeg mi ngi mën a taxaw te képp kuy jóg di dox ak say tànk di doxe say soxla di tukki di julli ji boo jullee ba noppi waa owaat ñibi boo bëggee waxtaan taxaw waxtaan boo bëggee toog toog boo bëggee jóg jóg ah dëgg dëgg nag dañuy jàpp bu baax a baax ne war ngaa mën a taxaw julli kon xëy na kii def loolu ñàkk xam la wala mu déglu ku xamul mu ubbeeku ci lu mel noonu yàllaa xam laaj bi ci topp oustaz jibril fay kii dem banque leb ci anamuk riba wala sax du banque moom daal leb na xaalis ci anam gu lislaam xaraamal ndax riba la jël xaalis boobu dem xaji ci màkk wala mu jox ko way juróom mu xaji ci màkk tontu li mooy ab jullit daa war a wattandiku lépp lu boromam subhanahu wa taala xaraamal rawat na fàggu alal fàggu alal ci anam gu xaraam jullit bi da ko war a wattandiku riba lu bon la ni ko alquran waxee ni ko sunna jàngalee sharia nag li at àtte mooy jëf yi xaj beneen mbir la xaj ay ay ponk la ay farata am ay waajibaat am ay sunna am yuñ sopp nit mën naa xarmal xaj ba xajam jeex ta du joxe benn dërëm moo tax dëgg-dëgg alal bokkul ci xaj alal ja nit ki di yóbbaloo ngir xaj yi ya, xëy na da koy passé wala da ciy dund waaye xam nga ne ka dëkk màkk wala fam dëkk ak màkk sorewul mu mën a waaxu tànkam wala mu mën a war fasam mën naa xarmal dem màkk def tawaful xudum dox safa ak marwa yow mu euh, taasi bési juróom-ñeenteel bi mu dem arafat ولا يوم التروية مدمنا يام فنان بفرخي دم عرفة وتعاوي عرفة بجم صوم يوم مزدلفة فنان ف دم من انسان جمرة نيوات مكة دف طواف الإفادة بحجم جيع موتا كيف كو حج بس حج مت شريعة داي جابنا يو حج نغا تي حج فرط لا بن ليون كون حج واتي نلان على جمع دون جفن ديكو جا حج جمع بودي على جو حرام لا لولو سا بكار لا سا ديگن سا بروم jotewul ak xaj mi ngi melni rek ki japp bu bu set di julli te ndox mi muy jappé fatir la bo xamné ci alal juhram la koy fayé wala alal juhram dal ci la ci la amé ndox mi alal juhram la jël ñëw ci yi sol ko julli kenn du ko wax sa julli baaxul ndax yëre yi nga sol ni nga ko amé wala ndox mi nga jappé ni nga ko amé déedéet yooyu yeneen bir la ak moy yalla la bakkar la digënté moog boroomam la jëf jii nak bu fekke def nako ko ni fa mu war ba fam jeexay deful lu ko yak dañu jàpp na jeuf gi jaxna jeuf gi baxna alal gi ñu jox way mu jigen nak te way juróom sax mën naa xamul fu doom ji jere alal ji mom yoonam nekkut bi yow mi fagu ci anam ko haram ya am bakar bi waye way jur wala nga jox mom nam ko amé nam amé alal gi lu dagan la moy doom mako jox dom di nak lim fagu loolu digganteem ak boromam la bàkkaaru boppam la kon daal ci gàttal ki jóg xaji mag xaramal na des na lépp lu xaj laaj ba xaj gi mat sharia day jàpp ne xajam wér na ndax nag xaj gi dana ci am tiyaaba yàlla dina ko ci fay ah bu dee alal ju xaraam lay yóbbuloo moom la doon jëfandikoo ba xaj ga jeex dëgg-dëgg day nax boppam waaye jërul muy séentu benn fayu yàlla ci xaj boobu nga xam ne la ko lal yëpp alal la ju xaraam wallahu laaj bi si topp sëriñ Mourtada Faye ñiy julli di toog ci ay sees bu dee jullig naafila la naafila moom jullit bi doonte mën naa taxaw bu ko neexee toog julli waaye nag lam waroon a am ci aw yiw genn wàll lay am ki mën a taxaw toog naafila toogaay boobu du yàq ak julleem waaye lam doon séentu ci tiyaaboy naafila ga genn wàll ga lañ koy fay loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa li feeg jullit baa ngi mën a taxaw day taxaw jullit bu mënta taxaw sax te mën a taxaw wéeru day taxaw wéeru bu ko mënul it mu toog bu ko mënul mu toog wéeru bu ko mënul mu door a tëdd te la doon tasaarit mooy buy toog mu toog ci suuf moo tax kon bépp julit boo xam yaa ngi jóg di dox ak sa tànk dem ca jàkk ja boo amee soxla mën a jóg dox ak say tànk doxi say soxla dëgg-dëgg boo lo tuuti nag war ngaa mën a taxaw julli li am solo ba am solo daal mooy nit ki xam ne li feeg mi ngi mën a taxaw julli bu toogee julli farata julleem wéru bu dee nag mënta taxaw ndax moo gën a xam ngàntam moo gën a xam wéradéem toog la man kon day sañ naa toog comme mënta taxaw julli toog la man sañ naa toog julli waaye li feeg mi ngi mën a taxaw te képp kuy jóg di dox ak say tànk di doxe say soxla di tukki di julli bi boo jullee ba noppi waa owaat ñibbi boo bëggee waxtaan taxaw waxtaan boo bëggee toog toog boo bëggee jóg jóg ah dëgg dëgg nag dañuy jàpp bu baax a baax ne war ngaa mën a taxaw julli kon xëy na kii def loolu ñàkk xam la walla mu déglu ku xamul mu ubbeeku ci lu mel noonu yàllaa xam laaj bi ci topp mbokk mi nee na daa dégg ñu ne yarab bi tax baaxul day wàññi wërsëg ak wax yu mel noonu mu bëgg a xam lan la sharia wax ci loolu tontu li mooy aha kay yar ay pittax dagan na di wax ne kenn waru koo jàpp tëj dañ ko war a bàyyi mu am liberté boppam loolu waxi njuumte la yàlla mi ko bind moko daganalal ay jaamam may len ñu sañ ko jëfëndiko motax tax bi japp ay tax tëj ci ay kaaf di len xontu di jaay di ca jëlé dara wala mu di ko dundee loolu lu dagan la ni mu dagané ci jullit mu yew aw fasam yew am baamam bu bëggé tak tak saña yew xarmi ganaar gi mbindee fi yalla yoy yëpp borom de len tagat may doomu adama yi ñu sañ leena a motax yar ay pitax dal sa deug deug day wañi wërsëg ak baaxul lolu waxi adala waye sharia waxut loolu xëy na ñu bari nañ bañ yar pitax rawatina bu dee pitax yu bari nañ dañuy naaw di dal ci kër dëkkandoo yi di yàq seeni néeg ak di leen tànqal xàq yu mel noonu moom la ñu bari daan wattandiku tax ñuy aaye njaboot gi yar fi di ko jaaree ci baat yooyu nga xam ne daf leen di ragalloo waaye sa dëgg-dëgg doonut lu xaraam ku ko mën a yar te wattandiku xàq yooyu yar gi xaraamoo ci sharia islam